mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen ànd ñun ci rajo Rewmi FM tey nag euh, ñu am mbégte bu yaa di ci dalal ki nga xam ni moom moo di bokk moomeel bu commune bu Bargny monsieur le maire gay abu Ahmed Seck la ñuy dalal ci émission gox bi ñu am mbégte lool di la dalal tey ci émission euh, gox bi fii ci rajo Rewmi FM ñu bàyyi la nga nuyook ak ñi nga xam ni nag ñoom ñooy ñoo ñuy déglu rawatina ñi nga xam ni nag ñoom ñoo dëkkee ca diwaanu Bargny kon monsieur le maire ñu ngi lay dalal bisimilah ci waxtaan wi. merci beaucoup maa ngi lay gërëm ci invitation bi di nuyu ñëpp ñu ñuy déglu. Mhm. réew mi point FM yëpp. Mhm. di rafetlu bu baax seen émission bi. Mhm. dinaay faral di ko déglu. parce que ay njëriñ ndong moo ci am. am na solo te bu ñu waxee décentralisation. ci kaw jóge ci suuf. day laaj am émission yu mel ni yéen ñoo xame ne it dañuy dem ci suuf. intéressé wu ci li nga xam ne moo xew ci mhm. gox yi ak gox waxaan yi mhm. di la ci sant di la gërëm bu baax a baax xam nga tey nag euh, ni ñuy daal di ubbee li nga xam ne moom moo jëm ci émission bi date bi nga xam ne àdduna wërngal këpp di ko màggal muy journée mondiale bi nga xam ne moom la ñu jagleel wàllum napp alors tey suñu réew itam euh, di màggal bés bi ni mel euh, yow nga jógee ca baar ñi ñëw fii te waxewuñu wala ubbeewuñu mi nga xam ne moo jëm ci mbirum napp te xam ku xam baar ñi am na taarix li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum napp alors monsieur le maire comme tey journée mondiale bi ñoom lañ ko jagleel lan nga ñu mën a wax tey ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di nappkat ñi wala sax ña nga xam ne ñoom ñoo nekk sa diwaanu baax ñi. effectivement tey comme ni nga ko waxee dañuy fête li nga xam ni mooy napp ci réew yëpp. <laughs> Euh, ñun bar ñi effectivement napp lu am solo la. <laughs> suñu économie ci napp la reposé wu. <laughs> Euh, may bëgg tàmbali rendre hommage vraiment suñu benn mbokk. Euh, ñu koy wax dollar. bi nga xam ni ku amoon solo la alors amoon ay gaal di utiliser doomu bat ñuy bëri. yàlla moo ratal bakken bi ci fan yee ñu génne. Euh, di rendre hommage aussi Baye Daouda Gueye. Baye Daouda Gueye xaritu son excellence de président Macky Sall. moom mi nga xam ni nii képp ku nekk ci napp. Kafountine. jaar Bargny mhm. dem ba Yoof mhm. di nga xam ni daaw Daouda napp la ma sa taxawal mhm. moom it yàlla na ko yàlla yërëm euh, bëggoon wax ni napp am na solo lool ci ñun euh, suñu économie ci napp la dépendre euh, Bargny dafa am ay atout yu wér ci napp comme lan am nañu plus de quatre cent cinq cent pirogues ay gaal boo xoolee ci département bi daanaka Bargny moo fa ëpp ay gaal ba noppi it seen mën-mën seen xam-xam ñëpp dañu ko saluer ci euh, dëkku napp yëpp et buñ ci boolee li nga xam ne ni président def na ko motoru yi gilet yi essence bi ba noppi li nga xam ni moom la ñu doon jooy depuis bar ñi am mooy quai de pêche yàlla def na ñetti président jaar nañ fii quatorze ministre de la pêche également jaar nañ fii mais histoire day retenir ne ci nguuru Macky Sall. Mhm. jaaral ko ci le ministre Oumar Gueye. Mhm. eh bien ci la Bargny amee quai de pêche am. Mhm. mu mel ni li ñu manqué woon mooy infrastructure de pêche am nañu ko tey. di xaar nag benn complexe frigorifique ba xam ne état moo koy dérouler. dix-neuf la. Bargny bokk na ci. mu mel ni. am nañu ay infrastructure maintenant am nañu ay équipement mooy moteur yeeg yu ni mel am nañu gaal yi am nañu xam-xam bi am nañu volonté bi. Mhm. donc napp bi bien sûr. Mhm. Euh, dañ ci am yaakaar bu rëy. Mhm. que ne dina continuer doon. un pilier essentiel. ci li nga xam ne moom mooy économie. kon mi nga ay jéego am na fa. bu baax a baax baax a baax jéego yoo xam ne nii. wax naa ko tout à l'heure mooy état def. ñëpp rafetlu ko mooy moteur yi. Euh, ñu subventionné ko essence bi dañ ko subventionné mhm. gilet yi ñu leen jox mhm. am na it yeneen yoo xam ne état mi ngi koy def mooy mhm. géolocalisation mbokk yi xam naa dafa teel ñoom ñoom dañoo xër xam naa ne ci monsieur le maire waaye naa ñu ñëw léegi léegi rek bu ñu demee ba ci waxtaan bi lu toll ak fanweeri minute ñu daal di ubbi li nga xam ne moo jëm ci antenne bi comme ça mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo faree ca diwaanu ñi daa ñu dugg itam bokk ci émission bi waaye monsieur le maire loolu prox la ñu daal di ubbi waxtaan bi tey euh, depuis 2014 yaa ngi ci mairie ba tey lan lañ fa mën a jàpp ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum social la monsieur le mm-hmm. maire ci tënk rek euh, wàllum social ca mairie ba ba nga fa ñëwee ba tey yan jéego nga ci def. effectivement social day li nga xam ne dafa nekk au cœur de la vie de l'institution. Mm-hmm. Euh, maanaam mairie sociale lu am solo lu ci. Mm-hmm. yemul ci social rek bien sur parce que institution outil de développement économique la mais <laughs> social daf ci am njëriñ parce que ñun ñoo nekk ak population yi guddi ak bëccëg <laughs> di gis seen ay jafe-jafe donc dafa jaadu comme ni ko maire yépp di defee <laughs> ñu am une forte politique sociale alors ñun bi ñu ñëwee déjà dañoo créer service social à la mairie de Bargny parce que amul woon service social loolu mooy premier jéego bi parce que accueillir nit ñi mën a traité seen ay demande dafa bokk pour man mooy première euh, pilier d'une politique sociale mmh. bien évidemment c'est très délicat dugg ci euh, yenn détails yu social yi. mais boo jëlee ci éducation boo jëlee ci éducation sociale bu bëri ñu ngi ko ciy def. mën naa wax ni bi ñuy doog ñëw. deux mille quinze seize. xale yi nga xam ne dañoo amoon ay difficultés. parce que seen parents yi mun ñu leen fayal jàng ñu dax leen wala pour x y raison mënuñoo yeggali. alors bi ñuy ñëw deux mille quinze jël nañ ci euh, lu tolloog quarante et quelques élèves di leen fayal ay bourses trois millions. chaque année ñu koy def. mairie bi moo koy génne mhm. année bi moo koy fay. Mhm. année bee ñu mujj moo doon jël nañu deux cent euh, vingt et un apprenants écoliers di leen fayal c'était à peu près vingt et un millions buy jóge ci gaf ak mairie bi. Mhm. année bii ñu toll nii nii nii nii nii muy démarrer. plus de trois cent jël nañu leen et ce sera à peu près trente et quelques millions. loolu c'est une politique. vraiment social mhm. mais ci secteur bu am solo. Mhm. muy éducation parce que éducation mooy avenir u mhm. euh, dëkk boo gis. mën nañu wax la même chose également. fourniture yi bi ñu ñëwee Bargny ci la doon une réalité. mës na doon réalité foofu. Euh, mës na am un ou deux ans. mais y a très longtemps. ñun bi ñu ñëwee première année bi c'était quatre millions. eh bien daaw c'était quatorze millions. c'est toujours monté en puissance. école écoliers yëpp. plus de sept mille et quelques mhm. dañuy am ay fournitures mhm. c'est vraiment une politique sociale mhm. la même chose dinañ ko def au niveau de la santé chaque année dañuy subventionner ay médicaments yoo xam ne dañ koy jox au poste de santé loolu day tax ñu mën a wàcc pris yi nga xam ne moom la ñuy jaay ces médicaments. mën naa koon ne it ci Covid bi nga xam ne jaar na fi très récemment. laata ngay ñëw ci Covid bi parce que dañ doon gis ni tey ndaxam euh, li nga xam ni moom moo jëm ci wàllum poste euh, de yi nga xam ni moom moo nekk ci commune bi yaa ngi doon wax léegi da nga leen di indil ay subvention yi nga xam ne ñoom dañ koy soxla jàmbatu hôpital yi wala yenn centre yi lan la wala yéen ñëw ngeen faj seen jàngoro boobu. ci mbirum santé bari ñi quatre postes de santé la am. bi ñu ñëwee dañu engagé li ñuy wax le programme de réabilitation du bâti sanitaire maanaam yeesal li nga xam ne moom mooy poste de santé yi mhm. bâtiment yi mhm. alors ci noonu la ñu songee poste de santé bu Bargny Géej defaraat ko lépp ba ca peinture ba mhm. ba ñu fa noppee ñu song poste de santé bi nga xam ne moom mooy Njolmaan alors logement bi nga xam ne nii moo doon servir donc à l'IEC euh, l'IEC euh, ICP infirmier bi bi ñu ñëw c'était pas fonctionnel. Mm -hmm. c'était un abandonné. defaraat nañu ko ba mu mucc ayib ba tey jii ñu ngi fay délivrer ay soins. Mm beneen post bi at ñu ngi xaar APIX parce que ci APIX day accompagner commune yi nga xam ne ñoom ñoo. ñoom la euh, terre bi traversé mm-hmm. di leen accompagner ci ay infrastructures mm-hmm. équipes yi ñëw nañ fa ñëwaat nañ fa te ñoom ñu ngi ci appel d'offre bi pour mën a réhabiliter effectivement post euh, de santé bu bu Missirah beneen bi mooy seul centre bi nga xam ne moom moo fa nekkoon. doon centre communautaire ñu doon ko tudde noonu mu tuddoon Ndiaye Diouf. pour ñu xam Bargny. Euh, réhabilité nañ ko. maternité bu Bargny réhabilité nañ ko il nous reste cinq pour cent même pas de travaux. donc mu mel ni structure yu bëri yeesal nañ leen. ba noppi li ci yokk it mooy. mooy Ndiaye Diouf euh, centre communautaire ñëpp xam nañ ne dañ ko tëjoon il y près deux mois. parce que y avait quelques difficultés administratives. Mhm. Mhm. administratives. ci ñi ko yoroon. fu ci toll. ñuy rendre hommage effectivement ñi ko yoroon. autorités yi tëjoon ko. Mhm. et puis depuis boobu ñun dañ ko réhabilité. ba noppi conseil municipal voté ni dañ koy def centre de santé. Bargny musul am centre de santé c'est la première fois. le ministre Abdoulaye Diouf Sarr donc a signé l'arrêté. bi nga xam ni moo ko def centre de santé le 15 septembre bi ñu weesu. depuis boobu ñu nekk activement ci préparatifs yi. médecins. Mhm. seen contrat yi signé nañu ko. Mhm. Euh, defaraat nañu bâtiment bi médicament yi ñëw na ñu ngi ci euh, les équipements médicaux. et surtout les appareils et autres. Mhm. yi nga xam ne dañ ko war a jënd. samedi bee di ñëw. naturellement lañ ko bëgg ubbi. delloo ko waa Bargny ubbee ko par une consultation gratuite. ba noppi li ci ëpp solo mooy. Ndiaye Diouf boobu may wax noonu centre communautaire boobu. Mhm. alors boo doon ñëw di gis médecin deux fay ngay fay journée. Mhm. eh conseil bi dana maintenant mille ngay fay. Mhm. bu de garde ngay ñëw guddi. conseil bi nee ngay fay. maanaam prix ñu fa doon pratiquer yëpp. dañ ko diviser par loolu mooy décision conseil bi. te à partir de samedi bii ñëw. eh bien daañu mën a retrouver seen centre de santé. suñu ambition nag. waaw ci mandat bii ñëw. démarche yi tàmbali nañ ko am nañ ci ay yaakaar mais bien sûr dañ koy téye ba mu sotti mais santé moom lu ñu soxal la ñu ngi wàcc def nañu liggéey bi ba noppi enrôler trois mille personnes ci CMU yi CMU mhm. dañoo interroger conseil de quartier yi parce que nag ñun lépp lu ñuy def du ñu ñooy toog fee di jël suñu ku ñu neex dañu dem ci conseil de quartier yi ku mhm. nekk ñu ne la askanu baan yàkkamti lañ lool ñu xool ci lii mooy sa quota salaamaaleykum alo allo allo allo alo rëcc na askanu Bargny daa mel ni dañoo namm seen maire ñu xool kii moom allo. Euh, allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah soxna si ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di nuyu di leen ziar. tur bi ak foo ñuy woowee tur bi. tur wi Dibor Jonn Guèye dëkk Bargny. Mhm. Dibor lan Dibor Dibor lan nga ñu mën a wax ci monsieur le maire mi ngi woon ci ponk bu am solo mais da nga insister moo tax ñu jël la ci tënk tey naka nga gisee liggéeyu monsieur le maire ca commune bu Bargny. macha allah monsieur le moom mu ngi jéem lépp lu mu mën rek pour Bargny jëm kanam. Mhm. parce dafa nekk maire boo xam ne maire bu social la. Mhm. maire bu liggéey maire boo xam ne dafa bëgg Bargny jëm kanam. parce que si éducation bi. Mhm. ñun ñëpp suñu doom yi ku am problème rek moom jéem na pour pour nga jàng. Mhm. ci wàllu infrastructure aussi. Mhm. gis nañ ci suñu bopp. ci santé bi. aussi ñu siy jéem. vraiment maire boo xam ne ni daal mu ngi liggéey. mu ngi xool population bi. mu euh, ngi gëstu chaque jour di xool problème waa Bargny. kontaan nañu trop. jege na askan wi daal jege na askan wi. askan wi. ma ne jege na askan wi jege na leen. foofu waaw jege na askan wi bu baax. Mhm. di wàcc ànd ak askan ànd ak nit mhm. di waxtaan ak nit mhm. di déglu. dafay déglu nit am na solo. surtout. te aussi communication macha allah dafa day communiquer ak population am na solo am na solo. kon ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax may ñenn ñi nga xam ne ñu ngi ci ginnaaw yi itam ñoom ñu mun a joxe seen kàddu. jërëjëf. monsieur le maire yaa ngi woon ci ponk bu am solo ci wàllum éducation bi nga ne sa xemmemteef tey hôpital yéen a ngi ci yéen a ngi ci démarche yi euh, tey kon mën nañ jàpp ni ña nga xam ne ñoom ñooy bari Bargny bu nu amee wopp bu leen dal mun nañ bañ sax ñëw Ndakaaru. Euh, dina am toujours ay pathologie yoo xam ne il faut ñëw Ndakaaru. yu ndaw loolu d'ailleurs c'est un peu partout. <laughs> Mhm. donc euh, am nañu euh, plateau à Bargny. Mhm. centre de santé bi dina ñëw jël place am. Mhm. Euh, Diamniadio am na ay hôpitaux. et bien évidemment. Euh, effort yi président def. ci mhm. Sénégal gis nañ ko. Mhm. partout partout partout di def ay hôpitaux bien mhm. sûr. ñu ngi améliorer carrément l'offre de soins. mais effectivement pour yenn pathologie moom. foog naa ni ñu bëri toute la banlieue il faut ñu ñëw Dakar. justement mais ñun moom suñu taxawaay ak suñu ambition. mooy. mandat bii ñëw bu soobee yàlla. eh bien ñu defar hôpital Bargny. sans compter que pôle urbain bi aussi. bi nga xam ne Bargny ak Sangalkam la nekk. bu ñu koy juumee dina am ay infrastructures. yoo xam ne nii euh, très moderne donc de santé mhm. donc loolu yëpp mhm. c'est à deux kilomètres trois kilomètres de Bargny mhm. donc mu mel nii en matière de santé fa ñu jógewoon il y a dix ans où y avait rien ci secteur bi absolument rien il fallait tout le temps ñëw Dakar ou à la limite Tëngéej eh loolu c'est devenu euh, vraiment c'est derrière nous et donc dans les euh, deux trois quatre cinq ans à venir mm -hmm. eh bien boo xoolee densité bi de d'infrastructure mm -hmm. donc au niveau de Bargny mhm. pôle urbain mhm. ak notre ambition de créer un hôpital et on le fera bu soobee yàlla mhm. et eh bien évidemment on sera sous d'autres auspices au niveau de la santé ci wàllum réalisation yi ci commune bi nga xam ne moom moo di Bargny bu ñu la déggee nga wax dafa mel ni euh, jege nga lool ñi nga xam ne ñoom ñoo di population bi di xam li nga xam ni moom mooy jëm ci seen jafe-jafe nga mën a indi saafara ci weer ci wàllu yu yaa ngi koy junj léegi ci wàllum éducation ci wàllum santé ci wàllum infrastructure yi loolu nag dafa am solo mooy askan wi ndaxam am na tey foo xam ne baat ñi euh, mën ngeen ci euh, réalisation yi mën nañ ko wax ci wàllum euh, stade mais bien vrai que am nga si ay jéego yi nga xam ne yéen a ngi ko ciy def ci wàllu woowee ndaw yi fa nga xam ne mën nañuy nekk di wàllum féexlu foofu ci wàllum réalisation am na ci. wax nga tout à l'heure askan bi. xam nga ñun bi ñu ñëwee 2015 dañoo créer ay conseil de quartier. Mhm. boo demee Bargny tey c'est une réalité bu ñu demee ci quartier bi le délégué fait partie du conseil le mhm. président la l'ASC bàjjanu gox bi conseil municipaux yi nekk ci quartier bi mhm. ñoom ñooy daje seen biir fal un président de conseil de quartier mhm. euh, ñu am fierté lool ci liggéey bi nga xam ni que les acteurs de terrain du quartier ñu ngi koy def amul lu ñuy def ci institution bi te du ñu waxtaan ak ñoom man personnellement animé naa plus d'une trentaine de conseils de quartier élargi aux populations maanaam dara xewul élection amul dara xewul mhm. mais dem waxtaan ak ñoom conseil de quartier bi woo population yëpp yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci quartier bi mhm. créé nañu nit un réseau des présidents de conseil de quartier mhm. donc c'est pour wax la ni la concertation bokkante weccante xalaat ak askan bi dafa nekk au cœur effectivement de nos politiques loolu mooy tax lépp lu ñuy def day répondre parfaitement ak li nga xam ne moom la population yi bëgg parce que réeroo ci seen bëgg-bëgg même ci seen sentiment ci ni ñuy doxalee. Mm-hmm. woote nañu fa ay réunion publique yu bëri. Mm-hmm. ci ay question yu essentielles. Mm-hmm. bépp waa mën na ko koo. Euh, témoigner et c'était ouvert. amul tabou ku ne di exprimer ku ne di exprimer wu. li nga xam ne moom nga euh, xalaat ci dëkk bi. alors loolu moo ñu permettre tey dëkk boo xam ne ay jeunes dong la. Sénégal Bargny it. rawatina. Mhm. jeunes yi ñoo fi ëpp. Mhm. jamono bi ñuy wax ni mhm. boo demee stade municipal. ci budget commune Bargny deux cent dix neuf millions. eh ñu ngi def euh, benn pelouse. foofu ci Bargny ca ñi ma teg benn kuréel. kuréel ba nga xam ne benn comité ad ñoom ñu ngi réfléchir bu ñu noppee ci pelouse bi. lan la ñuy tegaat. ci li nga xam ne ni mooy yeneen équipement parce que stade bi macha allah rëy na lool. et c'est très bien placé. ñi ne nañu centre d'hébergement ñi ne nañu pisine ñi nee nañu deuxième deuxième terrain. Mhm. ñi ku nekk yaa ngi wax. Mhm. eh pour que loolu yëpp lañu fay def méngoo ak li nit yi bëgg. moo taxoon ma def benn réunion bu mag. ba nga xam ne man sama bopp maa ko présider woon. Mhm. et eh tous les acteurs sportifs étaient là-bas. Mhm. Eh ba ñu fa jógee ñu teg benn comité restreint. Mhm. comité boobu nag ñu ngi xaar seen ay conclusions. ci mode de gestion bi ci quel autre équipement complémentaire pour poursuivre la modernisation du stade. loolu daf ñu ameel solo et enfin. troisième question bi ma denkoon comité boobu mooy. ban stratégie pour am de véritables clubs de ville. Mhm. yoo xam ne daañu mën a concurrencer ak club yi nga xam ne nii. Mhm. ñooy les meilleurs au niveau du Sénégal. Mhm. c'est pour dire que nii ci wàllu sport loolu mooy l'événement marquant de ce mandat. mais il faut it ñu wax ko amul tey quasiment toutes les disciplines dañuy recevoir ay subventions. boo jëlee les dix écoles de foot am nañu seen ay subventions boo jëlee club gymnastique. boo jëlee les anciens footballeurs jeu de dames scrabble taekwondo club euh, euh karaté mhm. euh, sport moto ñoom ñëpp mhm. ils ont reçu beddiwoo kenn mhm. beddiwuma kenn beddiwuma kenn les clubs aussi Bargny Sporting Club euh, Bargny euh, euh, basket club BMS Bargny Minam Sendou et cetera tout le tout simplement pour ñii ay licence ñi ay équipement notamment karaté yi ñi seen ay bëgg-bëgg parce que ak ak JO yi nga xam ne ñu ngi koy waajal foofu itam voilà bien évidemment JO mhm. yi nga xam ne ñu ngi koy waajal ci mhm. pôle urbain mhm. suñu pôle urbain dama koy faral di wax pôle urbain bi ci ñi la nekk ak Sangalkam loolu mooy la réalité tuuti nekk ci Diamniadio j'ai rien contre Diamniadio mais je dis juste li nga xam ne moom mooy la réalité administrative <laughs> de ce secteur et bien évidemment ñun ñu ngi préparer wu activement d'ailleurs le comité olympique mhm. stade Bargny ñëw nañ fa visiter nañ ko dañ ko bëgg di utiliser parce que naturellement bu ñu koy defee foofu mhm. le stade du Sénégal ñu mhm. remercier son excellence léegi ñu euh, inauguré ko février lañ joxe app exactement et donc loolu mais tout autour stade yi nekk foofu yëpp bien évidemment leur taux d'utilisation day yokku parce que mhm. club yi nekk ñëw di participer dañuy soxla nekk à proximité mhm. donc c'est pour dire vraiment que nii que ça soit dama koy wax mhm. administrativement que ça soit économiquement que ça soit sur le plan du sport eh bien suñu gox boobu mu ngi dund loo xam ne jamais dans l'histoire du Sénégal mën nañ ne baar ñi baar ñi mën nañ ne baar ñi émergence kon émergence bi ñuy wax clairement réalité la foofu li gën a rafet ci li gën a rafet ci euh, le plan Sénégal émergent mooy euh, ville nouvelle bi ci la bokk. juste ci li ci gën a rafet la. Mhm. fu mu nekk bar ñi Bargny Sangalkam. Mhm. loolu dañ koy gërëmee son excellence le président de la république. Mhm. mu bokk nag ci une politique pour Dakar nit ñi génn Dakar. pour Dakar respirer. muy politique boo xamee ne politique bu am solo la. politique buy faj réellement problème yi am Dakar. problème pollution entassé euh, embouteillage ñëpp sonn. président am idée boobu. yàlla def mu nekk suñu département. Mhm. eh ñu ko ci sante di liggéey nag guddi ak bëccëg pour que suñuy population approprié wu. loolu ci ay projet loolu ci ay ngëneel. Mhm. et puis préparer surtout xale yi. Mhm. loolu beneen fànn la ba nga xam ne toujours en parlant des jeunes. parce que yooyu ñuy def suñu dëkk. mais ñëpp ko moom. ku parewul bu ñu fay joxe liggéey doo ko mën a am. boo jëlee poor mais bien sûr il faut que nit ñi xale yi. prêt ci luñ pare ci loolu. Mhm. moo tax xale yu bëri ñu ngi leen di former ci euh, décompte bi tey bu ñu ko defee mat na plus de cent douze. ñoo xam ne école de formation des métiers portuaires et mhm. maritimes. fii koy Dakar mhm. ñu ngi leen di former pour préparer leen. et eh bien dans ku d' autres domaines. jàngat li fi am. ci ay projets yii pare. yii di waaj a pare xool. pour am ci liggéey. Mhm. yan domaine lañ la war a former. Mhm. ba pare inscrire xale yi ci formation boobu. Mhm. defal leen coaching. ça c'est notre travail au quotidien pour mën a profiter ci ngëneel yooyu nekk suñu. ci li nga fi jot a lim yëpp ci wàllum éducation ci wàllum santé infrastructure gis nañ li nga xam ni euh, def nga ko ca commune boobu tey monsieur le maire tey buñ la doon wax ni bilan dina jafe wax fii lépp waaye tey bilan bi tey lan la. bilan bi comme ni nga ko waxee. éducation waxuñ ci lu bëri. Mhm. santé wax nañ ci sport mhm. jeunesse. Mhm. Euh, waxuñu lu bëri ci euh, euh, y a tellement d'autres domaines. mais tey man su may tànn. maanaam damay wax ne rek ñeenti problème yu rëy. dañ ko fekk bari ñi. mooy lan jukkil ñu ci benn ñu tàmbali. ci waxtaan benn bi mooy érosion côtière environnement. fu ngeen ci toll. érosion côtière foog naa ni dëkk bépp xam nañu. du Bargny rek. c'est les côtes sénégalaises font partie des plus vulnérables. juste. ñun bi ñu ñëwee looy gis kër yi dem mhm. cimetières yi dem mhm. jàkk yi dem mhm. muy lu doy Sénégal am na ci un plan national d'adaptation bien sur mais ñun dañoo jàpp ni il fallait ñu am une action précise tey boo demee Bargny fi ñuy wax ville verte cent quatorze ñu ngi koy tabax te dañu koy jox gratuitement suñu mbokk yi nga xam ni géej gi dafa lekk seen kër cent quatorze logements fin décembre bi daañu réceptionner les deux maisons témoins mhm. un vaste chantier boo demee di nga ko gis mhm. ça pousse mhm. def nañu fondation yi ba ña ngi ci élévation yi loolu mooy la principale action de ce mandat mu doon une action environnementale parce que l'environnement c'est notre une de nos grandes priorités c'est l'environnement action boobu xam nañ ne suñu mbokk yi ñu ngi koy xaar. Mhm. loolu nag première phase la tudd. Mhm. parce que des na ñaar deuxième phase. Mhm. deuxième phase boobu it ñu ngi ciy dox depuis booba mais on espère à tout moment. mën a annoncer ay nouvelles. Mhm. di gërëm son excellence. Mhm. parce que xam naa ne déglu nañ ci benn ñaar xam naa ne ñu ngi ciy liggéey ak état ci ay solutions. Mhm. mais bu ñoree rek daañ ko génnee. bu ñoree daañ ko génnee it di ba di di di am di am vraiment aussi une pensée. suñu ay mbokk Minam. Minam c'est aussi ak côté de la mer ñoom it érosion bi am na fa doole lool. muy ñoo xam ne ay jàmbaar lañu. ñu gëm yàlla nañu situation bi métti na. mais ñu ngi ànd ak ñoom. mais dans la mer di pour trouver ay solutions. beneen ponk bi mooy ban. beneen ponk bi mooy maison de l'environnement et du développement durable bi nga xam ne teg nañu ko. Mm-hmm. parce que ñun suñu euh, secteur. Mm-hmm. dafa am ay industries yu lourdes. su ko sim ma nga fa. Mm-hmm. centrale ba ma nga fa. léegi monsieur le maire. egg nañ ci fanweeri minute. comme ñoo ko waxoon nag ñi nga xam ñoo di mbokk auditeurs yi ñu jël leen itam taataan seen xalaat ci li nga xam ne moo jëm ci waxtaan bi ñu daal di jël kooku salaamaaleykum. waaleykum salaam. Ah, soxna si yëkkatil baat bi. waaw maa ngi fi alhamdulilah tur bi. man la Ngone madame Sène. waaw Ngone madame seen la lion de Guèye am Ahmed mhm, yaay sax lion bi waaw Guèye Ahmed mi ngi fii di ñu dégg euh, tey. Euh, yow ci wàllum jigéen ñi Guèye Ahmed lan la def tey ci li nga xam ni moom moo jëm ci wàllum tey soxna yooyu noonu. waaw bu ko maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp. Mhm. di nuyu monsieur le maire. Mhm. di sama président Abdou Aziz Ndiaye. di nuyu sama responsable Sane Baro. waaw di wax rek ne. tey abu moom. waaw ut rek. bari kenn mënu koo wax sax. ndax dafa dafa dafa bëri ba kenn mënu ko wax lépp mais dinañ ci jukki tuuti rek. waa jukki ci tuuti rek nga may ñeneen ñi. waa léegi femme ñun femme bari nii. wax dëgg yàlla ngay abu amet set dafa taxaw ci suñuy mbir. bi ñu jox ay financement yu am doole. Mhm. yoo xam ne neewul kenn fay ma. Mhm. moom dafa ñëw ne man mënuma leen jàppale kenn par kenn. mais mhm. def leen seen ay groupement. ma dem uti ñëw jox leen. te li ma wut jox ku nekk xam ne ne maire. mënu kaa def. comme ñun suñu maire. utkat la dafa xam fi ñuy wutee mu di indi di ñu jox. ay millions la ñuy laaju ñu ñu fay ka danañu di leen jël ngeen def seen bopp. pour gàttal rek. Mhm. kon yéen a ngi sukkaliku foofu ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum jigéen ñi yéen foofu am na lu ngeen xam ne tey mën ngeen ko defal seen bopp ndax mairie bi moo leen ci jàppale. bien sûr bien sûr. Mhm. mu ay financement yu am doole la ñu jox ñun joxuñu ñu ay cinq cent mille wala ay cent mille. pour ngeen liggéey ci mhm. hmm? pour ngeen liggéey ci. day amu ay millions la ñu jox nañu liggéey leen. ñu nekk si nag di liggéey. di ko wan ne ñu ngi liggéey parce que day abu joxuñu xaalis bi rek. nañu liggéey leen dem yoonam ndax ñuy suivre di ñu xool ndax li mu ñu jox. ñu ngi liggéey wala liggéey. waaw loolu laa bëggoon dégg. waaw kon macha allah suñu maire moom mënuñu wax ci moom. fii émission bi bu moom affaire moom dinaa ko développé ba mais comme ñenn ñi moo tax am na solo am na solo am na solo. monsieur le maire mu ngi lay dégg dinañ ko jox minute mu sant waa baat ñi yëpp après balaa ñuy jeexal incha allah. wa léegi man dama doon wax ci toute la jeunesse bargnoise. Mhm. tout de euh, si sama kàddu euh, président Abdou Aziz Ndiaye. Mhm. waa APA. Mhm. ñun ñoo fas yéene fal monsieur le maire. ñun ñun waa APA. jeunesse Bargny. ñun ñoo fas yéene fal monsieur le maire ni ko ñëpp dégg. te li ñuy wax dafa dëgg ci ñun. Mhm. bëri rek prouvé nañ ko. Mhm. keroog bi ñuy def euh, kii bi rek ku nekk xam ne ne borom moto yi ko mhm. jeunesse bi ñoo koy falaat. am na solo ñoo koy am na solo am na solo. am na solo ñoo am na solo ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax. merci beaucoup. jërëjëf kon am na solo dinañ ci ñëw monsieur le maire di nga am ponk bi nga xam ni di nga gërëm waa baat ñi ak ñi nga xam ni dugg nañu woote waaye euh, gis nga buñ ko defee nii nag. daa mel ni duñ ci génn de asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ah sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax. di dolli ziar. ah tur bi waay. Pape Thiékoura Diawara. Pape Thiékoura Diawara waaw Pape Thiékoura lan nga ñu mën a wax tey ci commune bu Bargny. waaw mais. ma commencé damay leen di nuyu. Hmm. di leen ziar. Hmm. te di santaat tamit bu baax suñu monsieur le maire. Hmm. Gaye Ahmed Abou di leen di ko félicité daal te di ko wax que ni. li muy liggéey ñun jeunes ñu ngi koy gis. Mm-hmm. waaw parce que boo xoolee dëpp bu mu toogee ba léegi. Mm-hmm. daa am ay jéego yu bari yu mu dox am ay changement yu bari yi nga xam ne ko apporté la. Mm-hmm. personnellement en tant que jeune. en tant que sportif. ñun suñu xel day dal. parce que biñ ñëwee fii nii biñ ñëwee fii ba léegi. stade bi nga xam ne ñu ko doon bëgg. ba di ko ñaan. Mhm. pour ñu mën ñu ko perfectionnel defaral ñu ko mu gën a normal. Mhm. gis nañ jéego yi ñu si def. Mhm. parce que am na yenn liggéeyante yante ne wax dëgg fa yàlla liggéey état la. mais moom ñu développé juste somb ngand. pour mën ñu permettre pour ñun jeunes ñu mën a sentir suñu bopp si dëkk bi. pour mën a sentir suñu bopp ci li ñu bëgg. gis nañ ñun taxawee ak ñun te loolu na dañ ko ci féete di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla dëgëral taxawaayam ba li mu bëgg noonu loolu àgg ak jàmm ak salaam. Mm-hmm. mais tamit en tant que président mouvement. Mm-hmm. dama koy wax que ni liggéey liggéey bi mu def nii xale yi kontaan nañ ci. Mm-hmm. parce que man nekkul damay woote juste pour man. mais woote bi may woote nii ay bopp yu bari. ñoo ànd sama ginnaaw yónni ma. ne leen ne ñun euh, ne naa leen ko gërëmal. naa leen ko santal. ok ok parce que nit ñu taxawoo rafet na. Mm-hmm. te développement bi fii bari ñu nekk nii. Mm-hmm. ak fi mu toll nii ak ni ñu ko doon yëgee. Mm-hmm. xam nañ ne am changement. waaw. ñu ngi lay sant kon sëñ bi. di la dolli sant. jërëjëf jërëjëf ñoom di nga wax que ni. waaw tout kon baax na. jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm monsieur le maire euh, mel ni kon li nga doon wax sànq day firndeel lii cote euh, li nga xam ne moom moo jëm ci euh, cotuwaay bi nga xam ne def nga ko ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di askanu ñi kon ba tey ci ponk yi yaa ngi woon ci bilan bu am solo ci ñeenti ponk yi nga xam ni soxal na la tey yaa ngi woon ci ñaareelu ponk bi ndax mën nañ jàpp ni loolu yëpp dina nekk ay histoire yi nga xam ne ci ginnaaw lay féete effectivement mhm. euh, comme ni ko interloc sa ñiy woote di waxee mhm. xam nga euh, je disais mhm. li ñuy def pour la jeunesse am na yu ma ci wax sport culture mais dafa amit vole économie waay parce que dañoo jàpp ni xale yi il faut ñu am ci lu ñu téye juste jigéen ñi il faut ñu am luñ ci lu ñu téye mu doon une grande priorité ci ñun ñun bi ñu yegsee dañoo créer li ñuy wax MIE. maison de l'innovation et de l'entreprise. embauché ay doomu bari ñu fay liggéey mat nañu six yu fay liggéey mairie bi di leen fay. Euh, ñooñu seen liggéey day accueillir orienté. bépp jeune. bu bëgg a wut emploi. bépp entrepreneur maçon wala loo mënta xam. bëgg wut këyit. bëgg orientation. depuis ñu teg leen. ci volet accueil orientation orienté nañu lu mat. Mhm. plus de dix mille personnes physiques ou morales mhm. yu fa dem pour wut information mhm. wala orientation accompagné nañu plus de quatre-vingt-douze GIE ñu wuti këyit plus de deux cents artisans ñu wuti këyitu artisanat ba ñu paree loolu benn fànn la beneen fànn bi mooy financement moom la soxna si effectivement doon doon wax financement yi Euh, DER dugal na fa cent soixante deux millions depuis ñu créé ko ak tey Bargny pour plus de trois cent et quelques bénéficiaires mhm. ñun dañoo teg benn crédit municipal ak waa MECAP mhm. mutuel de crédit de la poste mhm. soixante dix millions tey ci crédit boobu nga xam ne maire yi moo ko créer MECAP mhm. eh bien lu tolloog soixante million millions soixante dix millions lebale nañu ko mhm. muy ay doomu Bargny mhm. di ci liggéey di ci fay ñuy joxaat ñeneen boo jëlee PNUD pour trente millions de francs boo jëlee secours islamique de de de de de France pour quarante neuf millions mën naa continuer les différentes sources de financement bi ñu ko xaymaa ëpp na trois cent et quelques voire quatre cent millions de financement yoo xam ne moom moo dugg ci biir dëkk bi ba noppi mu am ay formation parce que nit oui mën nga ko wutal kayit. Mhm. mën nga ko financer. Mhm. mais il faut nga former ko aussi. ñi ñu former it bëri na ay entrepreneurs yoo xam ne former nañ leen foofu. Mhm. ba noppi nag ñu teg ñaari programme yu am solo. benn bi ñu ngi ko tuddee PRODAB. programme de développement de l'artisanat. PRODAB mooy lan dañoo jël tailleur yi ñoom ñëpp ñu recenser leen. ñoom ñëpp bi ñu leen recenser à l'époque deux cent soixante-neuf ñu jël ci cent vingt. financé leen ay machine à coudre yu bees. machine bi jar cent vingt mille. eh bien institution bi da leen di subventionné soixante mille. ñoom soixante mille la ñuy joxe. Mhm. cent vingt. am nañu seen ay machine première phase la woon. Mhm. deuxième phase bi le onze bii lay ñëw ñu joxaat yeneen cent vingt donc ça va faire deux cent quarante sur deux cent soixante neuf effectivement tailleurs et on mhm. va poursuivre mhm. pour ñëpp ci man ci am mhm. la même chose ñu def ko pour les taximans cent quatre-vingt-dix-sept taximans moo fa am ku ne ñu jox un appui en bon de carburant essence la même chose ñu def ko pour les coiffeuses les entreprises de beauté précisément ñu def une tournée ku ne laaj la ku ne ñu laaj la li nga soxla kii casque la soxla kii chaise kii Euh, ku nekk rek li nga soxla ci matériel. Mhm. eh bien ñoom ñu xayma matériel bi c' était neuf millions. Mhm. les trois millions et quelques cinq cent. Mhm. c' une subvention les six millions et quelques crédit municipal bi ñu créé MECAP. donc ñoom ñoo leen ko effectivement financé. pareil ci pêcheurs yi. deux cent dix huit pêcheurs am nañu ay dons ay bon en carburant loolu. lu am solo la. jamono bi ñuy wax nii. ñu ngi tabax benn maison du bois lañ koy tuddee. ñu ngi toll ci chainage bi. maison du bois métier du bois. Mhm. benn euh, maison la bu ñu def ci deux cent dix mètres carrés. Mhm. lay doon. Mhm. machines yi raboter machines yi scier machines yi couper. suñu ébénisterie yi dañu doon dem di ko louer. Bargny ak Tëngéej ak feneen. ci prix yu xaw a cher. tabax nañu kër gi ñu ngi chaînage bu paree dañ koy équiper machines yooyu. bépp activité bu ñu doon def feneen. di fay par exemple mille francs. et eh bien foofu bu ñu ñëwee dañ leen koy defal cinq cent francs. lépp li fay jógee it. dañ koy dugal sur un fonds de développement de l'artisanat mhm. loolu mooy le PRODAB mhm. euh, ébénisterie yi mhm. ba noppi it euh, mën a wax ne commerce aussi am nañ ci une action spécifique commerce ci biir commune bi ñun bi ñuy doog ñëw dañu fekkoon lu tolloog plus de vingt millions de dettes ci marché bi. ci biir marché bi rek ci biir marché bi. marché central vingt millions de dettes. ma proposé conseil municipal. conseil municipal effacé dette boobu. ñu jàppale suñu ay jigéen. parce que ñoom ñoo yor kër yi. Mhm. ñoo yor xale yi. Mhm. lu ñu leen defalul dañ ko mënul. Mhm. loolu moo doon première action bi. deuxième action bi Covid bii biñ ci yeggee. ñoom ñëpp conseil bi dafa voté ne six mois bal nañ leen ko duñu fay. six mois six mois duñu fay. conseil bi ñu mujj def il y a deux mois. waay yi doon jar sept mille cinq cent ñu koy loué. dañ ko wàññi ba cinq mille. yi ñu doon loué cinq mille ñu wàcce ko ba trois mille. donc pour wan na la mhm. secteur économique yëpp mhm. la ñu jàppale mhm. commerce artisanant pêche wax nga ko ak équipement yi nga xam ne moo fa am notamment état def ko kee ak mu mel ni rek laal nañu secteur d'activité économique yëpp et eh bien te dañuy poursuivre poursuivre avec euh, PRODAC programme de développement de l'artisanat pour les maçons parce que dañoo jënd pour dix millions donc euh, c'est en cours pour dix millions de de matériel mooy été Euh, euh, euh, lépp loo xam ne jumtuwaay la ci maçon yi. jumtukaay yi ñuy loué. dañu ko jënd def ko ci benn kër. def ko ci benn kër. eh bien ñoom it dañ leen koy loué loo xam ne. ce sera moins cher. te lu fa jóge day demaat ci ñoom. mu mel ni économie. vraiment kon bar ñi mën nañ jàpp ni mu ngi génne koom ci biir dëkk ba. ah carrément. li wër ba wër mooy. Covid bi jaar na fi nag. waaw waaw mënuñu ko esquiver fi monde bépp la jaar. mais bu dul Covid bi ñi nekk ci marché. dañu leen delloo. parce que kuy fay sept ñu indi la cinq mille. cinq mille. cinq mille ñu indil trois mille. baal lu boro vingt cinq millions. may la six mois gratuité. jàppale nañ la. boo demoon ba laaj leen di nga xam. taxawaay bi nga xam ne am nañu ko. du <laughs> ñii nga xam ne ñooy artisans yi wax naa liñ ci def. et dañuy gën a continuer. parce que bari ñi moom suñu lépp la. jaral nañu lépp luñ ci def rek. lu luñ ci deful dafa fekk mënuñu dafa mel ni daj nañ secteur yëpp bu ñu laal am na loo xam ne sentir nañ fi euh, indi nañ fa jàppandalu ñi nga xam ne ñoom ñoo di mairie bi tey kon euh, monsieur le maire nga bëggaat euh, laaj ñi nga xam ne ñoom ñoo di askanu baat ñi nga ne mbëbët bi nga xam ne moom nga am tey moom nga bëgg a yéene yéene googu tey njiitu réew mi tabaat la ngay nekk tête de liste bu coalition Benno Bokk Yaakaar ci Bargny nga bëgg yootuwaat beneen mandat Euh, tey kon mën nañ jàpp ni sa bilan bi euh, boo ko présenté askan wi mën nañ ko adopté bilan bi askan wi adopté nañ ko ba noppi ok as euh, adopté nañ ko parce que puisque gis nañ seen bopp ci liggéey musuñu leen sori musuñu leen sori mhm. te sànq économie laa doon wax mhm. économie day loo xam ne ni ñoom musuñu di gis seen bopp ci ay maires yi man li ma gën a neexit ci action ay tailleur mhm. ay ébéniste yi ébénisterie yi ñi ne salon de coiffure ñoo xam ne en général euh, du ñuy am ay rapport ak ay programme avec mairie yi mhm. ñu gis nañ seen bopp ci li nga xam ne ñu ngi koy def mhm. su ma waxee mbirum érosion mhm. ñoo ñu gis nañ seen bopp éducation waxuñ ci lu bëri mais équipe bi euh, ñu ngi finir cinq salles de classe actuellement boo jëlee lépp xayma ko quarante et une salles de classe dañ fi tabax depuis ñu nekk fi yu bees 2014 ba tey yooyu mhm. yii mairie la mhm. yii état la yii partenaire la mhm. notamment Sococim bien sûr et la JICA réhabilité nañ quarante sept salites ba pare construit plus de vingt blocs sanitaires sans compter euh, action yu ma la wax ci fourniture ak li ñuy def ci social bi donc boo jëlee social boo jëlee santé boo jëlee développement économique boo jëlee environnement euh, boo jëlee sport boo jëlee culture bien que ñaari année yi ak Covid bi bi dafa mhm. xaw a euh, bloqué lu bëri. Mhm. mais am na ay jéego yu bëri yoo xam ne def nañ ko ci. Mhm. tey le théâtre de verdure de Bargny. ak le complexe socio euh, euh, culturel. Ouais. c'est quasiment gratuit. c'est quasiment gratuit. ku fa bëgg. Euh, bien évidemment dañ la koy abal li ñu fa soutenir ci ay manifestations ak ay concerts mat na plus de deux cents depuis ñu toog fii l'écrasante majorité c'est gratuitement <laughs> mhm. c'est pour la jeunesse mhm. là aussi on a accompagné tous les acteurs Arcos mhm. l'association nationale bi nga xam ne nii ñoom ñoo yor lépp luy dem ci théâtre récemment il y a pas un mois lañ leen financé six cent mille francs pour jàppale leen les troupes de théâtre toutes les manifestations culturelles quasiment mairie bi loxo mu ngi ci biir on a accompagné aussi régate parce que loolu ci suñu cosaan la bokk mooy rawante gaal plus de sept course de rawante yoo xam ne mhm. donc c'est pour dire que ni mhm. euh, ça bouge mhm. ci fànn yu bëri effectivement à Bargny eh ñun suñu rôle mooy di gën a pousse lépp loo xam ne ni mooy tax épanouissement des jeunes lépp loo xam ne mooy yombalal liggéey yombalal njabootu Bargny te li ni mel da nga tàllalaat sa loxo itam ñu tabaat la tête de liste nga war a jiite liste bi nga bëgg a waat beneen mandat kon dafa mel ni jiitu nga gaañi de ni ma la déggee nga wax nii. ah démb de def nañu manifestation bu rëy boo xam ne nii alors euh, je respecte tous les candidats et listes. <laughs> vraiment parce que ñun ñëpp a bokk nag. waaw baat ñi waaw mais def nañu manifestation bu rëy boo xam ne day. <laughs> Euh, baat ñi gépp génn nañu may profiter ci antenne bi di leen remercier vraiment. <laughs> Euh, ñi génn ñëpp. ni ñu ko gisee noonu d'ailleurs lañ ñu ko waxee. bilan bi ñu def. moo tax ñu génne pour nous dire merci. et de nous dire de continuer le travail. Mm-hmm. pour tout simplement. Mm-hmm. am beneen mandat. Mm-hmm. continuer li nga xam ne nii. Euh, moom la ñuy liggéey. est-ce yàlla moo yor lépp. mais en tout cas retour yi ñuy am di ko gis. parce que ci dëkk bi la ñu dëkk. jërëjëf continuer la ñuy dégg. et nous allons poursuivre. parce que on aime tant Bargny parce que moo ñu jox lépp. ok est-ce que mën nañ xaar kon tey benn. livre euh, blanc boo xam ne dafay dëxëñ lépp loo xam ne euh, ci li nga xam ne moom moo jëm ci say réalisation la ci biir commune jébbal ko ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi wala itam bu heure bilan bi jotee daa ngi leen woo ñoom ñëpp wax leen ni depuis 2014 ba fii ñu toll tey lii laa fi def ñoom itam ñu xamee ko noonu comme ça liggéey bi gën a yomb est-ce que ñu ngi xaar loolu. démb c'était la réunion de présentation des investis. de présentation du bilan. <laughs> c'était donc c'est parti. oui les rendez-vous du bilan comme ni ñu koy tuddee. ok document bi pare na. Mhm. moo taxoon démb. Mhm. ñu tegoon ko. Mhm. mais na nañu wax rek manifestation bi c'était tellement. Euh, voilà. il y avait tellement de monde que. vraiment. mais euh, présentation bi sax desoon na parce que nit ñi bàyyiwuñu fu ñu ko présenté donc tellement nit ñi dañoo bëri woon mais ñu xamee ko nii dañu dénkoon heure rencontre jot na jot na tàmbali nañ ko démb les rendez-vous du bilan nag dina am par thème lañ koy defee dans le cadre de réunion yoo xam ne on convie tout le monde ba pare le document il est prêt le document d'une cinquantaine de pages eh daañu ko jox bépp bargnois moo mhm. am ci accès mhm. xool li mu wax fii yëpp mhm. tënk nañ ko de manière plus concise et précise dans ce document et bien évidemment après nag le projet va venir parce que comme ni ma koy waxee on est ambitieux pour Bargny on est ambitieux parce que dañoo bëgg Bargny on est ambitieux parce que Bargny dañoo bëgg seen bopp loolu lii c'est un parcours qu'on va présenter le bilan mhm. mais le projet à mhm. venir aussi mhm. lu am solo la mu mel ni ci ñaari tànk yooyu lañu ngeen di valsé wu bilan et projet ok bilan et projet léegi monsieur le maire xam nga ni élection itam du yomb moom ni nga ko waxee nii euh, am na ci ay liste parallèle yi nga xam ni ñàkku fa ci commune ba euh, est-ce que tey ñooñu tey nga war a jàkkaarlool ci terrain bi itam amuñu jàppoo ni am nañ foo xam ne mun nañ la fa laal foo xam ne euh, mun nañ la am li ma ci mën a wax mooy euh, ñoom ñëpp je les respecte. <laughs> am naa huit listes yu jàkkaarloog man euh, ñun Benno Bokk Yaakaar amul benn parti bu manqué. kon Benno Bokk Yaakaar parti yëpp yow lañ. investir amul benn parti bu manqué. Mhm. déjà le premier combat entre guillemets. Mhm. mooy le combat du rassemblement. boobu day bari ñi yëpp xam nañ ne gañ nañ ko ba noppi. Mhm. ñoom nag waxtaan nañu nag ci waxtaan bu génne ba fin bi. mais malheureusement. malheureusement ku nekk da demal sa bopp. ñoom sax ñoo koy wax. ci ñoom ci seen biir booy xool di déglu muy réseaux sociaux ñoom ci seen biir ñooy wax ne. du ngeen àndul da benn bokk yaakaar day gagné ñoom seen biir ñoo koy wax. man waxuma ko donc pour wane ne émiettement boobu ñu def dispersion boobu ñooy def du benn du ñaar la ñoom seen biir kuy génne di ko wax bari ñi gépp di ko dégg. waxuma ko nag ñoom ñoo ko wax. Mhm. donc le premier élément mooy le choix d'un large rassemblement foofu day foog naa ni y a mhm. beneen bi mooy dama koy wax nag ils n'ont pas assez travaillé. mooy ñan beneen camp bi. Euh, gisuma ku ci ku ci présenté programme ñoom tey. Mhm. seen liggéey parce que bari ñi nag weesu nañ jamono yooyu Sénégal yëpp day ah yooyu c'est fini. maintenant nit ñi da ngay teg lu leer. ñi fi nekkoon indi bilan. indi perspective ñun suñu bilan ñëpp xam nañ ko xale yu ndaw yi sax mën nañ ko résité mais man gisuma bu léegi ku fi indi programme. Mhm. lu dul puusal ma toog. alors waa bari ñi nag daañu jugé ndax puusal ma toog doy na ci programme. Mhm. moo tax ma ne dañoo liggéeyul mbir mi nag liggéey la ak un peu de sérieux respecté waa Bargny waaw mais maay diw diw diw diw diw maay kii kërëb nit yi de xam nañ ñu ràññee nañu ku fi nekkal sa bopp ak ku fi nekkal ku fi nekkal ngi askan wi loolu rek laa ciy wax ok euh, ba tey rek ci élection yi ñuy jëm comme euh, li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum liste parallèle terewul nelaw ki nga xam ni moom moo di euh, monsieur le maire Gaye Abou Ahmed Seck nerewul nelaw waaye itam mën nga jàpp ni itam opposition bu boolee seen doole foofu itam est-ce que mënut a mënuñu def dara. Euh, nous dans tous les cas boole ou ñun Bargny-Waly la ñuy waxal ñoom sax xam nañ ne man duma leen xool. ñoom opposition bu fa nekk xam nañu ne euh, du may wax ci ñoom te duma leen xool en fait lijjantiwu leen man waa Bargny laay lijjanti. Hmm. ñoom seen bopp xam nañ ko. Hmm. deuxième mandat bi boo ko amee lan nga bëgg a teg ci loxo ci waa Bargny ci infra infrastructure bi nga xam ne tey moom ngay waaj nga ne Bargny de euh, dénkoon ngeen na mais amoon naa mbëbët bi nga xam ni tey deuxième mandat bi laa ko teg lan la war a doon wala nga koy denc. non non mën naa ko wax. Mhm. mooy lan mën naa ko wax yaa trois grands projets. Mhm. yoo xam ni nii euh, il faut bu soobee yàlla ñu réaliser ko. mooy mooy deuxième phase PROVEC programme de relogement. des victimes de l'érosion côtière. Mmh. deuxième phase bi. bu la yitteel la. première phase cent quatorze logements. Mmh. le financement est bouclé c'est en cours. deuxième phase bi euh, oui amal na ma solo lool. Mhm. sori naa ci lool. Mhm. Euh, loolu c'est la grande priorité encore. Mhm. deuxième bi mooy l'hôpital. ok c'est aussi l'autre grande priorité. troisième bi mooy le pôle de pêche wax naa sax ne am nañu mais quai boobu. dafa des complexe frigorifique boo xam ne nii wax naa ne dix neuf complexe la. Mhm. à l'échelle du Sénégal am na bu war a ñëw Bargny. Mhm. mais bu complexe boobu taxawee dama ci bëgg yokk beneen marché au poisson. Mhm. comme ça foofu doon le premier pôle de pêche de la région de Dakar laa wax. au moins ces trois grands. projets yi ma wax sans compter poursuivre école yi classe yi. social bi. et cetera et cetera. mais ces trois grands projets. hôpital premier pôle de pêche. li nga xam ne moom mooy programme de relogement des victimes de la région côtière mhm. ces trois j'ai largement d'ailleurs entamé mhm. les démarches dans ces trois projets là mhm. presque daj nañ commune bi wax nañ lépp ci li nga xam ni moom moo jëm ci activité ci commune bi acteur politique nga itam euh, gis nga poli seen politique bi nu mu jaxee mbirum mi jaas fan yii rek mu génn di doxantu ji euh, police ne ko kaay waroo dem te ñu ngi koy permettre yeneen candidats yi coalition Benno Bokk Yaakaar nga bokk itam euh, lan moo ci sa xalaat est-ce que waruñu yemale ñëpp itam. li ma jàpp mooy ñëpp lu ñu yemale benn ñaareel bi xam nga jamono bi day bari bouillonnement. Mm-hmm. jamono bi moom Sénégal depuis Sénégal am. Mhm. te jaxasoo bu ñuy préparer ñëpp opposition wak ñëpp ñëpp a ngi def ah. bien sûr attention il faut pas dire ñëpp a ngi def. Mhm. boo demee man dem ba bari ñi ñun am ñu manifestation mais candidat yëpp ñëpp a ngi manifester di loolu c'est normal. Mhm. mais bon le cas spécifique quand même <coughs> pardon du maire Barthélémy Diaz. il est vrai que aussi à répétition à répétition pas mal d'arrogance moi j'appelle au calme mhm. à la sérénité ah, solo la et que mhm. ñu jéem a euh, def en sorte daal que suñu exercice de nos libertés mhm. l'exercice démocratique surtout la démocratie de proximité ñu jéem a apaiser tout ça pour l'intérêt de nos administrés loolu daal laa amoon lu ma ci ma ciy wax mais dëkk bi ñëpp nag opposition comme pouvoir les manifestations pré-campagne mën nañu wax dëgg rek commencé na. Hmm, commencé na alors monsieur le maire tey comme euh, digg beru la dañ ne laata ñuy jeexal euh, émission bi daañu la jox kàddu nga daal di sant ñi nga xam ni dugg nañ joxe seen kàddu ci li nga xam ne moo jëm ci émission bi benn waxtu rek la woon waaye euh, ñu jox la kàddu itam nga sant ñi nga xam ni ñoom ñoo lay déglu mu di waa Bargny yaakaar naa ne ñu ci bari ñu ngi teewlu di la déglu. Euh, am na li nga ci jot a wax tey ñu ci bari jàpp nañ ni lu am solo la mais ñu jox la kàddu gi rek nga gërëm ñi nga xam ne ñoom nga dëkkal ñu di waa Bargny euh, bala may tëj tàggu mm-hmm. damay yokk rek nii mm-hmm. ci toujours cadre de vie mm-hmm. euh, ñuy saluer l'important programme Promoville ok quatre kilomètres de route ci biir commune bi c'est pas rien ok le depuis ñu ñëw on a injecté mm -hmm. beaucoup beaucoup beaucoup d'éclairage public mm -hmm. sans compter l'éclairage public bi nga xam ne moom moo jóge ci solaire mm donc loolu dama koy verser rek mhm. dans le petit bilan que j'ai parce que temps bi may ñu ko mënuñu wax lépp sur le plan mhm. mhm. pour jeexal damay vraiment nuyu mbokk ñu ñu déglu ñëpp réew mi point fm particulièrement waa Bargny wax leen ni euh, en tout cas cofeel bi ma am ci ñoom moom yàlla rek xam. Mm-hmm. te xam naa ne it ñoom seen réciproque. Mm-hmm. mënuma leen a fay. Mm-hmm. lenn am na. ñun ñëpp ñoo bokk à ñun ñëpp bëgg Bargny. nañu continuer ni ñu ko doon defee. ba tey mu jóge ci suñuy wéyjur. ànd bokk doonte gis-gis ci léeg mën naa bañ a. wóote. mais lu ci manti am ñu defe ko ci respect defe ko ci considération defe ko ci bañ a fàtte ne ëllëg dafa am juste man day mhm. spécialement nag ñi mhm. may àndal mhm. ñi nga xam ne ñoo ànd maa ngi leen di gërëm di leen sant ñi woote. Mhm. ñi bëggoon a woote. ñi déglu dugg. Mhm. ñi toog ci kër yi di ñu déglu. Mhm. ñoom ñëpp maa ngi leen di sant. di leen renouveler sama disposition. à être toujours au service de Bargny guddi ak bëccëg. di gërëm équipe bi ma àndal. di gërëm waa Bargny. ci li nga xam ne may nit ñu chance bi. ñu servir Bargny. y a pas servir sa dëkk. loolu c'est une chance bu ñu am. am solo yal leen yàlla jàppale ci loolu. yéen it ma di leen gërëm wax naa ne <laughs> euh, Sénégal dañoo décentraliser <laughs> eh bu ñu décentraliser <laughs> il faut que organes yi aussi décentraliser seen ay émission gox bi gox goxaan yi nga xam ne moom nga teg eh bien dafa bokk ci stratégie boobu moo tax may encourager ci émission di woo yëpp bépp organe eh ni ñuy traité politique nationale. Mhm. eh ñuy traité noonu. Mhm. politique locale. Mhm. communes yi bëri nañu Sénégal. mais du ñëpp ñu am. possibilité di exprimer wu. donc il faut. ñu def ko. pour que population yi tout simplement mën a am mhm. les informations il n'y a pas de démocratie participative sans mhm. information de proximité am na solo merci beaucoup euh, ñëpp ñi ñu déglu jërë ngeen jëf waa Bargny di la sant di la gërëm bu baax a baax ci disponibilité di jàpp wala di gërëm rek ñëpp ñi nga xam ne rek jàppoon nañ ci eh, émission bi ba mu yemb ba gërëm itam Fatou Baba faal moom mi nga xam ni moom mooy coordonné itam émission bi gërëm nañ ñëpp sant leen bu baax a baax kon jox leen dig daje beneen dimanche incha allahu